Euh, maa ngi lay sargal ci bés bi waaye nag mënuma fàtte ginnaaw bi ma leen euh, ñaanalee déwén yàlla fekk leen ci ay place ma fàtte ndaw ñi ndaw ñu bari ñi nga xam ne ci réew mi yor seen dooleeg seen xam-xam te ba tey ñu wut place bu ñu amawut tey nag conférence de presse bi euh, dama leen invité fii ci Grand Yoff ndax li may wax ne nañuy liggéey ci quartier yi ak ci village yi moo tax tey ma invité leen fii euh, ci base bi sunu siège euh, mu ngi fii soriwut ma bëggoon nag tey waxtaan ak yéen ci actualité bi ndax actualité bi defe naa ne euh, li ñuy gën a waxtaane muy ci presse bi wala ci grand place yi wala ci kër yi mooy woote bi nga xam ne président Macky Sall woote na ko pour waxtaan waaye nag euh, li ñu ci mooy dafa woote waxtaan waaye nag continuer di singale opposant yi xale yi nga xam ne dañu doon manifester mbot nañu ñetti téeméer yoo xam ne ëpp nañu ko bi ma ko laajtee bi may ñëw ñu ngi leen téye ci kaso yi te duñu ay samba booy too dóoruñu këfuñu yëfu jàmbur yéen journaliste yi gis ngeen coono bi nga xam ne ci lañ leen dugal kon li nga xam ne mooy woote président Macky Sall tuddee ko dialogue man li ma jàpp mooy manœuvre politique la mbiru politique la pour diviser opposition maanaam féewale leen waaye nag ci lii mu ne tàmbale na ko bu yàgg ak parti socialiste sénégalais parti démocratique sénégalais PDS ne woon naa leen ne ña ngay waxtaan bu yàgg donte PDS ci opposition la ñu ko xamee ba amoon na fi sax intercoalition tey nag la waxtaan woowu ak diir woowu feeñ bay seet sax du président rek mooy organiser dialogue bi ñoom ñoo bokk di ko organiser waaye nag la ca gën a doy mooy ki nga xam ne mooy ministre l'intérieur te nga xam ne moom moo ajo waxtaan bu parti yi toogee yu ni mel muy Antoine Diome moom moo doon procureur adjoint bi nga xam ne moo ne woon ca procès Karim bañ ko condamné weer yi yëpp ñu génn nag PDS bu ñu yëkkatee kàddu rek tudd nañ parti boo xam ne ñu ngi ko créé ci 1974 daanaka dana juróom fukki at saa yu leen laajee rek yéen lu tax lu ngeen bokk ci opposition bi dajaloo di xeex troisième mandat di xeex pour que ñëpp bokk ci élection yi dañ la naan man mii Aminata Touré maa fa bokk moo tax duñ fa bokk buñ la ne ah loolu lu tax ñu ne. ndax moo condamné lu woon te ñëpp xam nañ ne ay tribunaux ñoo condamné Karim Wade bañ koy condamné dafa fekk na man ma jógee ministère de la justice waaye nag xëy na dina baax ñu fàttali li ñuy tuddee toujours la traque bien biens mal acquis euh, nu mu commencé nu mu dooree mooy 2012 sénégalais yi bëggoon nañu xaalis bi nga xam ne ñu ngi ko doon dégg corruption bi lu ne déggoon nañ ko fi ci scandale bokkoon nañ ci li ñu bëgg président bu bees bi ñuy fal mu lijjanti loolu mooy président Macky Sall kon liñ naan demande sociale la woon ca booba jamono fukki at ak benn ci ginnaaw ni mu nekkee demande sociale fii ñu toog nii defe naa yi bëgg nañu aussi ñu leeral mille milliards yi nga xam ne moom lañ defoon ci Covid cour des comptes wane ne vraiment la ñu ca def dëppoowul ak waaye loolu moom du gaaw donte procureur war naa accélérer la cadence waaye loolu du gaaw ginnaaw goro bi moom aussi dafa mel ni ci mbir mi am na luñ ko ci waxal kon bi président Macky Sall faloo ca man mu nommé ma ministre de la justice lam ma mooy lii nga xam ne sénégalais yi moom la ñuy xaar ci man mooy xaalis bu bari bi nga xam ne dugal nañu ko ah nañu fexe ba liggéey ci ca nañ doon topp nag ku mel ni Karim Wade musuma ko xam musuma ko nuyu xaw ma ko donc awma benn xaar ma yàlla ak xaar ma yàlla ak moom lu dul ma doon def suma liggéey te poste bu ñu ma joxoon muy sport artisanat bu mu ci doon voilà na ma ca saware woon ak na ma ca defe woon la ma ca waroon a def noonu laa koy defee kon ma jox instruction maanaam procureur ma leen wax lanu war def lu dul topp leen seen liggéey ak li yoon wax defe naa dem procureur bu CREI monsieur Aliou Ndao wax na ko bu yàggul ma sax sant juge ci beneen affaire ba ma fay jógee ba ñu may ba ma présider seen assemblée générale boobu ñu te ñu mayoon ma ci cadeau ah dama leen ne bu fekkee ne am na ci koo xam ne ci yéen ëpp nañ nag cinq e et quelques juróomi téeméer rek nangami magistrat fekkee ne rek am na ku ma ci masa woo ne la li jëndil ma bii dossier wala bii dossier yëkkatil sa loxo loolu nag dafa musuta ba nu defee procès ba Karim Wade ñu condamné ko la ca des après président Macky Sall euh, bàyyi ko avant peine bi di jeex donte yoreel nañu cent trente huit milliards cent trente huit milliards yooyu suñu joon yàlla tey daf ñu ko yoreel ñun Sénégal yi contribuable naan contribuable Sénégal ne woon ne am na deux cent milliards yoo xam ne yi ci affaire wu reddition des comptes jotoon nañ cee teg loxo euh, communiqué communiqué au gouvernement au président Macky Sall ca jamono jooju confirmé na loolu président Macky Sall ci boppam jël na kàddu ne ah loolu kay lu am la euh, ku dugg ci Google rek di nga mën a mën gis la nga xam ne jot na waaye tey la ma doon wax ba ma PDS di topp rek singali ma ne ma voilà Aminata Touré moo tax ñu duñu ànd opposition moo tax duñu bokk Euh, F24 la ma doon wax tontu ba mooy dana feeñ ndax lii ab deal la deal bi nag tey la feeñ ñoom ak président Macky Sall ñoo di organiser koy seet lii ñuy tuddee dialogue waaye la tey am nag mën naa leen ko wax te mën naa koo dana ne waaw président Macky Sall conseil constitutionnel mayee war naa mën a candidat loolu moom danañ ko dégg buñ cee yeggulee it dañ naan nañu bàyyi rek conseil constitutionnel moom mu seet ñu war a doon candidat waaye nag laataa loolu sax koy seet ñoom bari na fu ñu jàppale président Macky Sall man ba ma nekkee député non inscrit à l' assemblée nationale ci la Benno Bokk Yaakaar perte majorité booba ca la amatul majorité waaye fexe nañ ba waaye jàll ay député PDS ñoo leen di wax rek donte ñoom ña nga ci intercoalition opposition loolu mësuñoo bokk sax ci benn initiative opposition ba mu defee motion de censure wate wu ñu ko ba ñu nee dañu bëgg a def haute cour de justice ci affaire wu ministre yi nga xam ne tudd nañ leen ci euh, dix milliards wu fonds Covid bi wate wu ñu waaye nag ba Benno Bokk Yaakaar moom indee seen décision ne dañuy euh, foqati mandat wu Aminata Touré booba moom wote nañ kon lii nga xam ne lañu def ña ngay voilà deal ak président Macky Sall yàgg na wane nañ ko sax ci assemblée nationale bëgg nañ nag organiser benn li ñu toog waxtaan waaye waxtaan boobu yëpp pour am lu ñu jox opinion internationale maanaam sénégalais yi ak aussi sunu partenaire bitim réew yi waaye li ci jublu mooy ñu effacer maanaam amnistier Karim Wade cent trente huit milliards ya nga xam ne yoreel nañu ko te taxul looloo tax ñibbisiwul ba tey ñu dal di ko effacer waaye nag okk mi rokkam na loolu la président di joxe waaye li nga xam ne moom la ko fere di jox mooy bu ñu toogee ni conseil constitutionnel daal ni ma ko waxee mooy décider ku war a nekk candidat bu conseil constitutionnel décider ne président moo war a nekk candidat kon ay la yëw déedéet conseil constitutionnel ëppul maqaama Sénégal yi 17 millions yi ñu doon conseil constitutionnel amul pour ëlbati décision yi nga xam ne sénégalais yi jël nañ ko ci 2016 ci constitution bu bees bi sénégalais yi comprendre nañ bu baax a baax a baax lan la constitution bi wax ndaxte président ci boppam da koo expliqué fu ne mu dem ñu ànd ci ak moom fii campagne naa fi ba tous les jours daanaka dama daan dox suba ba ngoon fii ci Grand Yoff moom it ku ne mu waxtaan ak yow dugg ci réew mi campagne wax kilifa diine yi ba ñu ñëpp ñu comprendre ne kenn mënatu la def ñaari mandat yu tegloo ci biim réew. kon loolu dafa leer amul benn institution boo xam ne yaa ëpp manqaam peuple sénégalais bi ñu doon kon fi ñu doon dootul laam-laamee lu constitution wax ba conseil constitutionnel di ñu ci gindi déedéet loolu xam nañ ko waa conseil constitutionnel ñun ñu yëkkati woon suñu carte wala gënuñ ñoo xam lañ doon wate lu mu doon fi ñu toll jamono yii mooy ñu appliquer la constitution maanaam li constitution wax ñu def ko li constitution wax nag leer na président Macky Sall def na ñaari mandat kon jeex na na wut candidat bu ko neexee wala bu ko neexulee yëpp mu seet naka la bëgg a doxalee waaye moom mënta nekk candidat kon loolu mooy dialogue bi ak la nga xam ne moom laa ko waxoon man mii nga xam ne moom man lañu ñu singale woon ne maa tax maa tax déedéet booba mënuñoo accuser ki nga xam ne ñoo ngay co-organiser maanaam lii nga xam ne moom laa leen wax président Macky Sall daal nee na ay ca leen ñu waxtaan waaye ma ngay foqati ay mandat député ma ngay tëj kaso lu ëpp trois cent nangam jeune ma nga jël voilà opposant Ousmane Sonko jël justice ne ko leen ba kii du ndax moom la ma bëgg mooy mu tànnal boppam ñi nga xam ne moom lay jàkkaarloo ca élection 2024 yi nga xam ne moom ci boppam ñépp war nañoo mën a bokk ba mu des moom ndax constitution bi wax na lu leer fi ñu toll fii ci Sénégal nag dafa mel ni suñu démocratie bi dafay dellu ginnaaw ci ni nu ko gëj a gisee loolu nag démocrate yi waruñu koo nangu waruñu koo nangu doonte ñun dëkku jàmm la lañu Sénégal dëkku jàmm la Sénégal pays de dialogue def naa ba depuis temps président Senghor ñu ngi koy wax man mi jigéen doon yaay doon maam xam naa ne jàmm moo jig njaboot moo ñu jig loolu xam nañu ko waaye nag mënoo ne ay ñu dialogué ba noppi yow nga kaabaar voilà di emprisonné ay xale di def yéen ci journaliste yi seen ñaata naataango ñoo ne ci kaso bi te pourtant président ne woon na ci ayam kenn du leen journaliste di faagaagal ay opposant ba noppi nag ne ay xale ñu waxtaan kon loolu li ñu ci jàpp mooy président Macky Sall du waxtaan lay président Macky Sall li ñu naan manœuvre politique politique lay def. te nag ka ko ña ko jàppale ak ka ko dee jàppale mooy parti démocratique sénégalais bu ma ko doon misaal dama naan boo jëlee fukki su fukki baaraam seen benn baaraam dañ bàyyi ci opposition bi ndax intercoalition la ñu waaye juróom-ñeent ya ca des yëpp ña nga kër président Macky Sall ñoom ñoo ànd di nas lii nga xam ne euh, moom la ñu gis mooy deal politique te defe naa ne sénégalais yi kenn mënatu leen a nax ndax ñëpp comprendre nañ ne parti bu ñu sos yaa cinquante ans juróom fukki ci ginnaaw voilà ab nit mënu leen a tere def li ñu war a def boobu nag fale ñu trouver li tubaab naan ay excuse wut lay waaye lay wi moom tey dafa jeex gis nañu lu tax bokkuñu woon ci opposition gis nañu tey lu tax mënuñoo bokk ci F24 parce que lii président di nas ñoo koy nasa ndox moom mu ne leen danaa leen libéral Karim Wade danaa effacer 138 millions yi nga xam ne ñu ngi ko koy toppee te ñëwul ci réew boobu ba tey ndax loola waaye nag voilà ni ma ko waxee loolu laa leen di jox okk mi rokkam waaye yéen nag da ngeen di fexe nag bu ñu toogee ngeen ne waaw ah nañu bàyyi rek conseil constitutionnel mu désigner candidat yi conseil constitutionnel bi yoonam nekkatul ci mbir mi parce que ñun sénégalais yi réglé nañ ko ba pare loolu euh, dafa war a leer moo tax vraiment jeunes yi jeunesse ñu ngi woo soxna yi ñu ngi woo borom kër yi les hommes voilà ak ak at bu ñu mën a di woo kilifa yi kilifa diine yi kilifa aada yi kilifa syndicaux yi association yi mais aussi di woo les femmes tout particulièrement ñu xam ne lii ñuy def sunu bopp lañ koy defal waaye aussi sunu doom yi lañ koy defal seen présent ak seen avenir kon ñoom it nanu takku mobiliser wu bañ def ginnaaw ànd ak démocrate réew mi ànd ak plateforme des forces vives M24 bu ko defee suñu démocratie liñ fi jot a am muy les acquis démocratiques te bu ñu ko amuloon président Macky Sall kon mu toog fa mu toog président Macky Sall nii muy def opposant yi bu ko doon def buñ ko ko defoon kon moom du doon candidat ndax jox nañ ko fee woo commissariat te nañ ko mujj bàyyi bu ñibbi moom ba ñuy foqati mandat wu Moustapha Cissé Lo ak Baye Ndiaye la ma ca wax mu ngi fii ci seen vidéo ne woon na c'est dañu dañu violer la loi loolu la santaane pour ñu def ma ko pour bokkati sama mandat ak yeneen yi yeneen ak yeneen ñun ñii ñëpp dañu na ak moom ca place de l'Obélisque ala président la ramassé mënoon naa ramassé suñu teel yi te ci kaso bi ni ñu koy defee nii waaye dafa jàpp ne démocratie système la boo xam ne bii dangay ngay ñëw wax ñu wax sans compter nag yéen journalistes Euh, gis ngeen fitna bi nga xam ne euh, ci ngeen nekk kon ñu ngi woo toutes les forces de la nation yi nga xam ne lim naa leen pour que ñu ànd euh, jàppoo fexe ba suñu constitution bi ñu respecté ko ndax président Macky Sall mënul bokk kooku leer na ñu fexe aussi ba organiser élection yoo xam ne yu jaar yoon lay doon bu ko defee ñëpp mën a bokk loolu mooy li nga xam ne bëggoon naa leen ko wax tey maa ngi leen di gërëm di leen sant constitutionnaliste moo taxoon ne nul nul yéen koy fàttali trois fois donc xam na ne bu dee ci côté droit rek foofu wax dëgg yàlla am na sursaut peut-être nee na dootul foofu léegi affaire politique la waaw constitution la ñuy wax wala politique la ñuy wax président bu ko neexee mu wax waxaat leneen dañ koy jox cër bi nag parce que mooy président de la république waaye li mu wax mooy président bu ko neexee mu wax bu ko neexee mu waxee. man dañu defoon ne loolu pare nañ ci dañu defoon ne wax dëgg yàlla ba ñu ànd ak président defoon nañ ne la nga xam ne moom la ñu xeexoon deux mille onze quatorze personnes ñàkk ci seen bakkan du ñu ñëwaat deux mille vingt trois wax dëgg yàlla di nekkaat ci même problème ñu day ñaan loolu moom en tout cas man Aminata Touré yaakaar ma ko woon sooy demaat yoon wax du ko nekk bu ko nekkee wax waaye def naa ne au moins. il s'est rendu compte qu'en matière de droit, il n'avait plus d'argument. Bon, il a glissé dans le domaine politique. Le président de la République, il est tenu par le respect de la Constitution. Mais d'un coup, il nous a cette Constitution a 200 ans, 300 ans, 400 ans. L'époque qui stabilité seen réew loolu la ñëpp tënkandoo seen bopp ci benn sac bu ñu tuddee constitution waaye man dama bëgg a toog ci nguur gi rek bëgguma dem donc su ma neexee la ma signé woon ak la ma Sénégalais yi wote loon ma teg ko ne def li nga xam ne moom laa bëgg a def loolu démocratie yi ñu ko nangu mais chantier dañu jox chantier yi dinañ ko ko yeggal dañu wéral voilà ëpp ñu xam-xam ëpp ëpp ñu xam-xam ëpp ñu expérience chantier yi na ko bàyyi fa mu nekk te dem balaa nga noppalu danañ ko ko continuer ba yokk ca yokk ca bonne gouvernance yokk ci mbéy kon loolu pour man euh, argument amul foofu On prend une autre question. Bonsoir tout le monde, je m'appelle Jean, je vous journaliste de STV. Bon, je vais revenir un petit peu sur les épisodes là. madame Mimi Touré ba nga nekkee si coalition Benno Bokk Yaakaar gis nañ ne yaa nekkoon tête de liste nga dirigé bi ba teg élection assemblée nationale ñu gis ne koy affaire yi sottee da ko jugee di tax nga jugee fan li nga jotul moo tax nga jugee fan loolu laa bëggoon a xam nga leeral tuuti Sénégal yi nga xam peut-être bu nga defoon président assemblée nationale doo di projet quoi que ce soit deuxième bi mooy jugee nga sa yaa ngi ñu nekk pouvoir yaa ngi ci opposition déclaré nga sa candidature en 2024 est-ce que mën nañu xaar ay alliés yoo xam ne ay leadership lañ par rapport à l'opposition ñu ànd ak yow si euh, élection yi ñu incha allah merci. très bien euh, xëy na mënoon nga ëlbati question bi ne ma est-ce que boo d'accord garantiroon président Macky Sall ne war naa am troisième mandat est-ce que kon bu boobaa nga yàq parce que réew mi foofu la fa ma mas a taxaw ci troisième mandat musuma ko varié diggante juillet 31 juillet ba ñu voté am résultat yi ba 12 septembre jour bi ñuy voté pour le président de l'Assemblée nationale je n'ai jamais position su ma ci varié woon taxaw ci bi parce que ñii lii ñu def man maa leen ko daal la preuve ah saa yu président waroon a jiite daanaka ci politique ko daan jox ah kon loolu bu dee argument ci mel mënoon naa ko waaye gëm ma ko waaye waaye gëm waaye waaye gëm ma ko waaye gëm ma ko dama jàpp ne Sénégal aussi kàddu daf fi am solo parce que fi ñu jaar ba jàppale président bu nekk président de la république démocratie la woon engagé woon nag Sénégal ne réglé na question bu troisième mandat lay cëram mooy mu tënku ci kàddoom bàyyi fi stabilité bàyyi fi jàmm chantier yi nga xam ne def na ko ñu continuer ko ko ci jàmm ak salaam Sénégal continuer di wéy ay alliés nag du fii la ñu koy lijjante di waxtaan et dinañu fexe effectivement ba am coalition bu jàppale euh, Mimi 2024 maa ngi leen di gërëm euh, di leen sant di leen souhaiter encore une fois une bonne fête du premier mai jërëjëf